li ma leen wax mooy lenn seen taxawaay seen liggéey mooy mën a tere ñu tëj seen bërëb liggéeykaay bu nekkee un point de danger dañu koy tëj waaye bu ngeen tënkoo ci li nga xam ne technicien santé yi loolu la ñuy wax administration bi wax loolu amaana kenn du xalaat euh, dakkal seen i activité parce que loolu c'est important fii dafa am solo parce que en moyenne huit mille acteurs danañ fi dugg par bés huit mille sénégalais loolu dafa am solo euh, maa ngi laaj léegi représentant Mareyeur yi ndax jën baa ngi dem ci sénégalais yi jën dafa am importance ci suñu dundin ñun parce que jàppal ni 70 pour cent sa apport protéine fii ci réew mi produit halieutique moo koy indi donc c' est important. Ah, monsieur le ministre actualité obligée coow li bëri na lool si attribution licence de pêche yi alors ban assurance nga mën a def si euh, pêcheurs yi pour rek assurer leen que ni voilà tout se normalement si on peut se permettre de le wax ni réew mi ku fi ñëw nga jéem a dut sa baaram ci yenn yi amaana coow day jóg léegi man dañ ma fi teg pour ma préserver secteur pêche. pour développer secteur pêche te incha allah ci laay tënk xam nga coow bëri na te Alioune Ndoye bi jàkkaarloo gi fi ñu toog nii bi mu toogeeg tey signéegul benn licence de pêche kon loolu rek tontu la bu dey ci par rapport ak li ñu wax yëpp waaye nag au Sénégal ma nu fay am ni nga amee sañ-sañ yow doxalee say activité économique noonu la beneen sénégalais amee sañ-sañ laaj obligation administration mooy tontu ko ci nii wala ci nële waaye obligation mooy tontu ko te incha allah parce que ñun dakkaluñ suñu liggéey samay service ñu ngi liggéey te dañoo fas yéene continuer liggéey boobu kon damay dalal xel nit ñi wax nii lu fi doon yàq géej te ma xam ko maa ngi koy xeex te ci laay sax incha allah